jamono yi Saafi'i na lañ imaamu Saafi'i na nekk duñ lu ñuy jàng mu mujjee tasaaroo yu bari ci diggante ay mansuuraat ak mansuumaat kër yu kër yu ndaw bokk ci téere mi nag kër yu nag bëgg a jàng ni ne def ci denc way jamono jawaab am ni téere ci wooye mu ngi tudd Abdullahi ibnu Naaj Ibrahim hmm. bokk ci borom xam-xam yi hmm. ku bari woon xam-xam la hmm. jàngalekat dëgg la woon itam ku biral lu bind la itam waaw bind na ci usul téere bi ak saraa bi ci daal nasul bunóor bind ci mustalawoon ak di talaatul anwar ak saraa bi hadil abrar bind ci balaana nawrul xaqaa ak xaraawa xeebul fataa ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu ne yaqulu abdullahi wa wattasama suman lahul wal arabiyul mujtama yaqulu dana wa abdullah woom abdullah ittasama sax na mu suman de tur la woo ñaar ko wax si ni abdullahi la tudd walaala bi muntaba hmm. tey ko jugandi ci askanu waay hmm. mu ne askanu maala bii la mën hmm. naa am ci Abi Talib ci lay askanu wala ci meneen Ali lay askanu waaye lay askanu moom kooku le moo ne alhamdulillahi ba man mu alhamdu mbooleem jant lillah ji sax la ñaan alaamaat ci li nga xam ne faada bëri na mu mm-hmm. mooy tasaaroo na bëbb na mel mm-hmm. jadaay ci may mm-hmm. alladi may yoo xam ne xaada na coon na du waran ci jamono yu yàgg xam na xam yu bëri yoo xam ne demoon nañ baax ci baaxam mu ngi koy sant ay muy ay ay mayam yu bëri mooy xam ci jamono yu yoo xam ne demoon nañ baax mu ngi koy alhamdu mbooleem cant lillah mm. alaama ci li nga xam ne faada ba bënamu mm-hmm. mina jadaay ci may mm-hmm. alladi may yi nga xam ne mm-hmm. naxaata nga coon nañu duuran ci jamono yàgg-yàgg umma islamiya lim leen baaxee ci risalatu nabi sallallahu alayhi wa mu doon loo xam ne xëri jiitu woon amuñu ko loolu jullit ñëpp ñoo ngi war a wajaala te mu def mm-hmm. moom borom bi mm-hmm. alfura banqaas yi mm-hmm. wal usula ak cosaan yi li man ñaal ku xam ne yëroomu dana mu sàkku nay laa seen ak xam maxsulan ak mooy ki nga xam ne ay xam-xam mu koy defal waaw ah, léeg-léeg nga sawarlu dara ci mu xeela ca léeg nga sabablu dara ci usulul ahkaam mu mm-hmm. xeela ci mm-hmm. wa jaxala te mu def alfuruha banqaas yi mm-hmm. wal usul ak cosaan yi liman muy ku xam ne yëroomu dana musal ku nay laxaa xam leen maxsulan ak ak xam maxsul boo demee nasul bunóot daa wax ne masal ana toog ma xool la doon te bariwul ci waxtaan léegi la wax dafa ne masdar bu natt wa maf'ul la doon te bëriwul ci waxi arab xam nga max max maxsuur ak maxsuul ak maxluuf ak majduur naa yooyu la ca wax am na ji boole maxtuum ak maysuur ak maxquul maxquul kal yaakaar naa masdar yi natt wa maf'ul baat yooyu la ci waxi arab wasaada yëkkatee na moom borom sa diine jile diina hmm. bi man ci yonentem bi nga ne hmm. saada sangu na mu alwalaat bi hmm. borom bi moo kaweene diina ci yonentem bi nga xam ne mooy saydul wara mooy saydna muhammadu sallallahu alayhi wa sallam awa saada yëkkatee na moom borom bi sa diina jile diina di man ci yonentam bi nga xam ne saa da na mu alwara jëlli wa mu am ne jëlli mooy keraw yonent bi mooy keraw ci jiitaante bi amul xayrul xal ba fasi kursi seen darajaay rawante bu si waxee arab bi jiitoo jiitu mooy mu jëlli bi ci topp mooy musalli ci saat gi bi ci mooy musalli ci siin bi ci topp mooy taali bi ci topp mooy atif atif bi mooy muxtaar bi ci mooy xatiyu bi ci mooy mu ammal ak lu tey mu su këyb ak ma waxee xalba noonu lañ tëddee mujalli mooy bi raw raw attaanil mujalli wal musalli wa baadahum musalli wa taalin baxda wa maatikun yasri wa hmm. muftawha summa aladi wa mu ammalun hmm. wa jaalatin musu kaytulo ejri hmm. yaakaar naa noonu la demee maanaam mooy kiraw ñëpp wal wara bi ndeefi ila wara ñu ngi ci gannaaw ñëpp ci gannaaw bi man saadal wara muhammadin kooku nag mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam munawwiril quluubi te daa aji leeral xol yi waaw moo ci def nuurul hidaaya ndax moo ci jàng moo indi alquran bi moo indi alquran bi moo indi sunna te la ci lii man bi amee wa kashifil karbi te daa aji fuñ ñu njàqare wala kuréel ba njàqare yi yawmal qiyaama ci moom la njàqare kattale ko ba salla yàlla na def salaatu alayhi ci moom rabbuna wa sallama tem def salaam ci moom yàlla na yàlla def ci moom salaatu ak salaam wa alihi ak ñoñam xam nga ali bi ñoom goetil caala kii damir ibnu malik saxal na mu ne damir bu ko jaxe so jihati dara dafa am ne bam la ko jax dafa war comme ala ali waaye na moom war واحمد قابل لدعت بنالا ومن قبل لازما قد جعلا وليس عندي لازما استرك سنة والنفر فيه نزوة ومن على فهمه ومن أكب koo xam ne in kama askanu li sharhi ak képp koo xam ne yaa ngi askanu ci diinaam rek yal na salaat bi aju ci moom ak li ci moom kii woote jàng diina kii woote dajale xam-xam yi diina yi kii woote jàngale xam-xam yi diina ñëpp ci lañ bokk képp buñ naan yaa ngi yoru sarihan haada bir maa bu ñuy xaajale ñaari wax yoo te bokkuñ mu ne waxiina qadra aytu waxtu wa ma gisee al mazhaba mazhab bi rujaanu oo lëngëm al kasiru lu bari ci borom xam-xam yi saaba dem na lëxoo jëm ci loolu bi ma gisee ne ci suñu gox yi masabul imaami Malik lu bari ci ñu yëngatu ci fiq ci lañ tënku waye na xadraayat ba ma gisee al mazhaba mazhab bi rujaanuhu lëngam alkasiru lu bari ci borom xam-xam yi mm. saxaaba dem na lëwa jëm ci moom mm. bi ma gisee ne almashabul maliki fii ci suñ mm. lu bari ci ñuy yëngatu ci xam-xam ci wàllu fiq ci lañ tënk wa maa siwaahu lu dul moom masab bu mislu anqaab muhrib yi mm-hmm. mu ngi mel ni anqaab bu mm-hmm. muhrib mën naa doon naas mën naa doon ismul faayil mm-hmm. anqaab benn rab la boo xam ne xamul ismun bila musamma la lu ñuy wax te xamul la dafa am ñu ne ndaxam njanaaw la bu xamoon sax daan fëkk doom yi ñi mu dajjal ab yonent ba ñaan yàlla jeexal ngërteem mm-hmm. moo tax kenn mënatu koo gis mm-hmm. su fekkee lu xamoon te la mm-hmm. lu ñoo tudd la te kenn mënu koo su fekkee lu mos daam la lu ñoo tudd la te kenn mënu koo gis kenn mënu koo gis rek yeneen masaahib yi nag ñaan xaar tumaranke kulli xutrin ci bépp gox nag min nawahil maxribi ci wàlli maxrib bi ma gisee nag fii ci suñ gox yi ñi fi yëngatu ci fiq yëpp daal masabul imaami Malik ci lañ jëm moom lañ lëngal yeneen masaayib yi doonte masaayib sahiha rek taxul ñu xenu ca bi loolu amee aratu la namm an ajmaa ba ma dajale xas min usul ci cosaani masab bi maa lu xam ne fii nekk na buxyatan càkkutee mm-hmm. di say usul yi waral maqaat moo mm-hmm. tax usulul masab yi mm-hmm. danaa ci dajale loo xam ne soo jàngee furoxol masab yi mën na laa dimbali bu baax a baax waaw moo tax usulul masab yi danaa ci dajale loo xam ne soo ko jàngee boo demee ba ci furox yi mën na laa dimbali bu baax bi loolu amee araftu laan na maanaam bu ma dajalaat min usul yi ci cosaani masab bi maa loo xam ne fii nekk na ca booyatun càkkuteef li si zone yi ñaar borom yi maa xam mun tabidan aji sànneeku la nag an maqasadi wali suma jubluwaay maa li nga xam ne zukkiratu dees na ko te dal funooni fa fànn yi jurul usul muharraran biroom mu daaji tollale wala muharram biroom mu daaji tollale su ko defee nag fiq nag boo see lëggéey xam-xam yu bëri ngay soxla jumtukaay yu bëri ngay soxla waaye am na ci yoo xam ne ci yeneen fànn lañ koy jàngee ah tey boo bëgg a doon faqi yoo bëgg de génnee bëgg de génnee ah te ci kitaabu mbaa ci sunna il faut nga xam naxu il faut nga xam balaaxa il faut nga xam wàllu riwaaya il faut nga xam dara ci wàllu tafsir waaye loolu ci yeneen xam-xam lañ koy jàngee su ma waxee ne maa ngi jàngale usulul mazhab yi hmm. yeneen i fuqaa yi de soxla hmm. te bokk ñoom usul hmm. yooyu soo leen bëggee te ñeneen nga ko wutee ji usul lay jàngale loolu la bëgg wax mun tabitan bi doom aji sànneeku la an maqsadi wali suma jubluwaay bokk ci suma jubluwaay maa loo xam ne du kera tuddees na ko te dal fun wani fa fànn yi xëyri yu dul usul yaa ay xam-xam la yu fuqaa yi di soxla waaye dund na nag usool la hmm. yooyu dama ci hmm. wax muharriran du ma laaj def tahrir li may wax hmm. wala muharraran doon yu lu ñu def tahrir lu ñu tollale tuddee naa ko moom wéy bi maraqiya soodi mooy xéegu waaye texe texe bu nekkee fu kowe so ci bëgg a àgg ay sell la yoo xam ne mën nga ci xéegee ba àgg li mu taxi ruqi yi ne alaaji sàkku yéeg wu mm-hmm. ak yéeg ku bëgg a taxe daal mm-hmm. téere bi ndimbal la taxe mm-hmm. ak taw yibu maa ngi ñaan allah yàlla alkarima almadada tëb maa ngi ñaan yàlla mu defal ma yokkub may madat ma yokkub may wa nafaw ak njëriñam bil xaar yi na ñaar way abadan faaw maa ngi ñaan itam ku ko jàng rek na ci jëriñu ak nu jàng mën a demee mu dem ci muqaddima bi ki ci njëkk a bind lu jàng awalu man allafahu fil kutubi muhammadun shafihel muttalibi awalu man aji njëkk ci koo xam ne allafahu dajale na xam-xam bi fil kutubi ci téere yi muhammad muhammad la ibnu idris mm-hmm. ibnu abbas ibnu osman ibnu safi safi maamaatam la mm-hmm. al muttalibi kay ko jug muttalib mm-hmm. muttalib moo de magi hashim ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay abdul muttalib mooy maami imaamu safi askanam ci moom la jaar wa xayruhu kaana lahu saliqa mithlu alladi li nas min xaliqa wa xayruhu ku mooy saafin yu nag ci mujtahidoon ñi ko woon ku ci duut moom rek kaana nekkoon na xam-xam bi saliqatan di kenn jikko dafa ñaaw moo nag génne àtte di xam-xam bi waaye dafa meloon comme bindare rek mu ngi mel rek nax bu ba mu dikkagut arab yi daan nañu wax mu dëppoog naxu waaye seen bind la la woon mm-hmm. misu la di kem li nga xam ne mm-hmm. li lor bi ñaaloon na arab yi mm-hmm. min xaliqatin ci jikko balaa ñoo génne xam ko xam bu mu mën a doon mooy awaaridu mooy mbir yi nga xam ne soo cee wax rek dañ gis ne génn koo xam-xam xam-xam bu mu mën boo ca ne la nga xam ne soo cay wax du gis ni génn xam-xam bi la hmm. loola mooy moo doon xam-xam ba hmm. xam-xam boo koy jàng war nga xam moo doon bi hmm. léegi moo doon usul mooy lan malaana alakaamu xatte yi te mooy lu mel ni amru nat bu karaa xaraam ibaaha ak lu mel ni siha fasaad manho ak yi mel noonu ak satta sabab ak yi mel noonu xatte yooyu de wal adillatu ak tegtali xàtte yi mm-hmm. ak xàtte yi fu ñoo dëgg di ko saxal mm-hmm. comme lu mel ni kitaab wala sunna wala ijma mm-hmm. wala xiyaas yooyu la al mawdoo mooy mawdoo xam-xam su le jàng lan mooy mu lan mooy xaqiqatul amri lan mooy xaqiqatul nahi lan mooy ijaab lan mooy saw lan mooy sarta lan mooy maaneew

mooy alaxkaamu charan ya wa adillatu wa kawnuhu nekk moom mawduu bi xaasi de lii di al adilla faqat dong mat moom lu ñu dégg la ñenn ñu ne nañ déedéet adillatul ahkaam yi ñoo de mawduu fënni waaye ahkaam yi bokkul ci daal al ahkaam wa adillatul ahkaam yi ñenn ñee di adillatul ahkaam yi rek wala wakkoon woo nekkam mu moo doon xaasi yi lii de akaam yi faqa dom de addi lay faqa dom xam ne akaam yi bokk ci loolu mas moo lu ñu dégg la waxi ñeen la gis nga bu baax a li usulul fiqhi mooy lan usuluhu dalailul ijmaali wa turuqu tarjihi qaydun taali wa ma lil ijtihaadi min sarxin wada wa yutlaqul aslu ala ma ala ma qad raja mu ne usoolu usoolul fiqi yi dalailul ijmaal yi mooy tegtali sori tegtali xàtte yi ci mbëmbëstan tegtali xàtte yi ci mbëmbëstan lu mel ne xaayadaaf amru lu mel ne xaayadaaf nahyu lu mel ni ijma mhm. lu mel ni qiyaas mhm. lu mel ni istisaab mhm. lu mel ni am lu mel ni xaas moo di lan xam nga amru mooy lan bokkut ak nanga maamur la nahyu mooy lan bokkut ak nanga man yu naan wula ijma mooy lan bokkut ak nanga ijma xasu na qiyaas mooy lan bokkut ak nangam ci qiyaas la saxee istisaab mooy lan hmm. bokkul ak nangam ci istisaab la saxee xam hmm. mooy lan bokkul ak nasu sàngam xam la hmm. xaas mooy lan bokkul la nasu sàngam xaas la su ko lan mooy xam lan mooy amru lan mooy nahyu loolu mooy dalaayul ijmaali fiq loolu lay usul loolu lay jàngale bu dara lu mooy nangam maamuur bi yii la nag nangam man yiyu xaan wu la nag loolu borom furox yi te mooy fuqaa yi ñoo ko jàngale wa turuqu tarjihi yooni lëngal yi xëydun tënk lañ taalin bu daaji topp naka noonu tarji bu xamee taarut bu xamee bayna dalilay ni yooni ngay jaar ba lëngal loolu itam ci xam-xam bi de jàngale la lii ab nassu la lii ab nassu la bu mu ci maana doon boo ko xeenee ci ni ko mën a dégg yow dafay mel ni doo leen boole du xal suba ana ban nga ciy gën a dëgëral sukkandiku ca boobale wacce ba ca des dégg nga loolu mooy tar ji boo ana ana foo koy jaaree loolu itam dana ci wax wa ma ak li nga xam ne l'ijtihaad ñaan ijtihaad min sartin ci sarta wadaxa boobu leer na ko al ijtihaad mooy mbir dafay gaar laajaloo kenn ak nit waaye xam-xam yi nga xam nag ci nga gëstoo ba xam loo jàpp ne mooy xàtte ci lii nga xàtte wu ca loola wane ko loolu mooy ana yan mooy dajee ci ba mën a lii am mbir la mu gaar laajaloo kenn ak nit waaye xam-xam yi nga am nag moom nga ba xam loo gis lii daal nii lañ ci war a su ko defee nga jàpp ne loola moo di xatte mooy ijtihaad sart yi da dajee ci nit ba man ko dér na booyal al aslu aslu alaamaay ci lu xam ne xaraja lëng na léeg-léeg nga dégg al aslu nangam te wane loolu mooy cosaan al aslu baraatu simma wane loolu moo gën a dëgg si cosaan waaw léegi ne ah, al aslu nangam pour wane ne loola mooy raaj forme mooy la wal forme hukmu sarin qad tahallaqa bi sifatil fi'li kanat bin mutlaqa wal fiqhu wal ilmu bil ahkami li sarin wal fi'li namaha naami adillatu tafsili minha muktasab wal ilmu bi salahi fima qad dahab فالكل من أهل المناهي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا كلام ربي إن تعلق بما يسير فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف قد كلف الصبي على الذي يحتمي بغير ما وجب والمحرم wa huwa ilzaamu alladi yasuqu aw talabun faaxa bi kullin xalqu lakinnahu laysa yufiidu faraxa wala ko di li faq di faraxin saxaan ci jàngaloo ma ne mën nañu jàngaloo mu ne wal faron faron buñ ko waxee xukumu sarxe mooy àtteeb sariyan xattaan laqa boobu xaju na mu bi sifatil fiili ci melow jëf boo déggee faran dañ ne lii jëf la mm-hmm. ñu ne jëf ji nangam mooy àtte ci sariya mm-hmm. nangam mooy àtteem sariya ni nga xam mm-hmm. ne jullit sibaar ñu ne jullit sibaar mii lii àtteem mooy farata la xàgg nañ ci witar ñu ne witar mii li daa àtteem mooy man duub nangam ji nangam mooy àtteem loolu la ñuy wax faran bokk sangam nangam la tëddee mu dogu misaal ne kanat bi ni nat bu mutlaqan de lu ñu boyal mm-hmm. bu dee ci arab noonu la buy ci ibaaha noonu la mm-hmm. al fiqhu mooy lan mm-hmm. mu ne wal fiqhu fiqhu woo moom al ilmu mooy xam bil ahkaami ci àtte yi namaaha askan na àtte yooyu nag annaam yi aji askan li charin jëm ci sariya wal fi'li ak jëf al ahkaamu chariyatul fi'liya a shar'iyatul fi'liya attee sariya yi ànd ak mukallaf mhm. xam-xam bi koy jàngale moo di fiq mhm. alakaamu shar'iyatul fi'liya mhm. sariya yi ànd ak mukallaf xam-xam bi koy jàngale moo di fiq bokk na attee sariya yi ànd jikko de bokk na attee sariya yi ànd ak pas-pas waaye attee sariya yi ànd ak jëf nag yëngatul cër xam-xam bi koy jàngale mooy fiq moo tax al wane al al alhemu bil akaam yi mu mm-hmm. ne akaam bi da nga ko askan ci saroon fi'lu mm-hmm. nga ne al fiqhu huwa alhemu bil akaam shar'iyyatil fi'liyya waaw mm-hmm. al fiqhu huwa alhemu bil akaam shar'iyyatil fi'liyya loolu la mu ne wal fiqhu fiqhu huwa moom fiqhu alhemu mooy xam bil akaam yi ci àtte yi namaha askan na xarte yooyu nag an naa mi aja askan li sarin wal fiali ala kawmu sarin yetul fialiya nga xam-xam bi la koy jàngal moo fiq ana dégg nga ko adillatu tafsili tegtali fasale yi muktasabun lu ñu min ha ahkam yooyule su ko def bi tafsili ahkam yi ngay xamee ci fiq Mm-hmm. foog nga koy jëlee mm-hmm. nangam dee farata la mm-hmm. ci aya sangam lañ dëgg wax ne ci farata wala hadis sangam ci lañ dëgg wax ne farata la wala ijma moo fasu ne farata la wala xiyaas moo saxal ne farata man nangam dafa ci nangam lañ dëgg su ko defee bu ñu waxee na ne fiq mooy al ilmu bil ahkaami shariyatul fi'liya dund nit ba ko tuddee xam-xam ci xam-xam bu mu mën a dafay xama xam xam-xam ba ba dara du ko ci moom déedéet xam-xam boo ci àggee ci mustawa feeyo ñu déglu rek kenn nga ci ñun xam-xam booba donte am du la juum fa nag waaye fii wóor ne balaa nga doon fa xiiw da dem ba nga ala kaamu sara itul fin lay dab lu juum déedéet waaye soo ci àggee ci xeey wax ñu déglu la rek fa xiiw moo tax waneen mu xam gi ñu wax bi salaahi nekk na ci xéwénoo fii maa ji li nga xam dem na ci su demee ba nga yow militoo nga yëngatu ji rek kon ah doon la may waaye xam lépp lépp na aymatul arbaa kenn werante wut ne ay fuqaha lañ buñ ko duut fa xiw te comme ci maa dara wax laa adri al aymatul arbaa buñ duut ay fuqaha kon fa xiw te comme ci maa daan daf adri ma la xamal ne bu ñu waxee xam xam fiq mooy àgg nga ci mustawa bu ay yoo ñu déggal la ci rek waaye firiwul na da ngay dem ba dara lu juum fa ah, waaw fal kullu képp min alil manahi ci borom ngir yi alarbaat yére ñeent abu hanifata malik shafii ahmad kum ci mën a doon yaqulu dafa daan wax ne adri te ñooñu buñ dul ay fuqaa mm-hmm. kon umma bi amul faq yu mm-hmm. waaw fa kon na woo daa ji ko mm-hmm. ñoo da roy teew kat ci booy wax ci xam-xam xem ci li nga xam rek li nga xamul nga ne xam ko rek sëg ko baax mu ne góor gi fa leen daan wax ne kan baaxul te ci masala la gën a ko ne ama loolu wala loolu na yem ci li nga xam mooy ci mu ne loolu lay mu ne mu ne seen baaxul te ci gën a bëri mu ne kalaamu rabbi waxi sama borom intaan laqa bu xaajoo bi maa ci lu xam ne yesihu dana mu wér fi'lan mbiroom muy def lil mukallafi hmm. ñaal ku ñu togg jëf i'laman waxi sama borom hmm. bu tegtalee maana moo mën a doo jëfi mukallaf hmm. waaye xalaqa samawaati wal arda te loolu loolu jëfi mukallaf mënu jaa am di wa yawma nusayyiru qul illaahu yuhyikum summa yumiitukum wa laqad xalaqnaakum summa sawarnaakum ay yooyu jëfi mukallaf mënu jaa am di waaye bu teg tey loo xam ne jaadu na mu doon jëfi mukallaf ni aqimu salaat min haytu innahu ci naka moom mukallafun ku ñu togg la bii ci moom te muy lu xam ne bi mu mën a doon jëfi mukallaf dafa ànd ak ñi gàcc ko nit ki nag parce que loolu le yoon def na ko xamee bil hukkumi la day hin fa ñoom wala maawul usuli boo dégg hukkumum saran mooy waxi yàlla joo tegtale lu mën a doon jëfi mukallaf te yéen nag mu xenale ko ci mukallaf gi am lu mu ko jàgga ci la mu am lu koy def lo mbaa lu mu koy bal wala muy lu koy jox ndigal rek gis nga ko baax baax gis nga ko baax baax man a kalaamu rabbi waxi sama borom in taalaqa bu ajoo bi maa ci loo xam ne yes yu dana mu wér fi'lan mbiroom muy jëf lil mukallaf ñaar ku ñu toog jëf bu tegtalee maanaam moo xam ne jaadu na muy jëfi mukallaf fi'lan xàggli wéy la min ha fi innahu ci boo xamee ne mukallaf moom rikki mukallafun ku ñu togg la bii te boole ko muy ko def loo nit ki fasaaka loolu la yu'rafu dees na ko xamee bil hukmi indahum fa ñoom benn def gi wala muy ko togg bagi mm-hmm. wala muy ko wan nag may xam nga ci ndida mm-hmm. booy naawee bu ngere booy naawee nga ba mm-hmm. su ko defee takk lii buy ci wàllu farataal du dal ci kaw guni buy ci wàllu xaraamal du dal ci kaw guni waaw guni def lu xaraam du ko samay yow mbugal ndax toppewuñ ko dara bàyyi luñ farataal ci mag ñi du ko tax a yow mbugal ndax sant ñu ko dara waaye nag buy ci wàllum nag bu nag wala ci karaaxa nag kooku taklif mag ak gune ñoo ci mag bu defee mën du xam ci yow su ko bàyyee du ko wàññi sax gune yi bu defee mën du xam ci yow su ko bàyyee du ko wàññi sax waaw mag su bàyyee makaro te yàlla tax dana am ci waaye taklif bu naan du jeexital buñ naan ci mag la yam day fekk muy ci wàllu tahrim wala ci wàllu ijaab waaye bu ci wàllu nabbu wala wàllu karaha kooku moom mara bu ne ci yam loolu mooy wax bi nga xam ne moom lañ tànn tante fuutee am na ci xat kulle ba toggees na asabiyu gune bi xëyri ma def li nga xam ne wajaba mm-hmm. wal muharrami ak bàyyi lu dul liha mm-hmm. waaw maga gunee ci xam def mando maga gunee ci xam àlla ci nga ne waxtu mi tànneef na ko mm-hmm. man naa guutee xam na ca de waaye de muy wax lu ci daal buñ naan ci mag la xam na fekk muy ci ijaab wala ci tahrim mais bu ci natt ne nga xamee ne mag bu defee man sa am tiya bu ko bu ko defee am tiya bëri. du ko bàyyi du ko wàññi sax comme mag rek. yi karaa mi nga xam ne mag bu koy mag ko tiya du ko am tiya. ah du ko mag ko tiya nga tiya wala. waaw. taklif moo de lan. mu ne woom taklif. ilzaamu ladi. mooy warale loo xam ne. warale ci nit ki loo xam ne. te suq dana métti defam dafay mm-hmm. indi mooy ilzaamu maa fiihi kulfatun mm-hmm. warale ci nit ki loo xam ne fa koy mu door sotti mm-hmm. ni ne talabu maa kulfatun mooy sàkku ci nit ki loo xam ne balaa mu koy da koy sonne ilzaam talab moo ko gën a yaatu ilzaam talabun jaasim lay talab nag buy talab xeeru jaasin talab la su fekkee talabu ma fihi qurbatun la kon man doo mukallaf bihi la ni farat doy mukallaf bihi tarkul makruh mukallaf bihi ni tarkul muharram doy mukallaf ma fihi qurbatun la kon man du mukallaf bihi ndax war na si tarkul makruh su ko defee boo téyee foofu lay am waaye du liggéey ci foofu hmm. du liggéey ci foofu hmm. waaw bu ñu ne jaamu gi la mën dóor la ñoom ñoom ñoo ci jàppe soo ko defee te yàlla sax dañ teew moo tax ne faaxa tudd na bi kullin ci képp ci ñaari maana yi day xalqun ne ñoo bëri de wax ne attaklif mooy ilzaamu ma fii kulfatun xam hmm. nañu ko wax ñoo bëri de wala talabu maa fii kulfatun da ngay xam nañu ko wax ñoo bëri waaw woom taklif ilzaamu alladi mooy warale ci nit ki loo xam ne ci mm-hmm. suq day sonnee defam mm-hmm. aw talabun wala dee sàkku ci nit ki loo xam ne mm-hmm. da koy sonnee la talabu la dee suq faa tudd na bi kullin ci képp ci kee maana yi xaw aw ne lakin na wa li fi nekk yu biir du jëriñ faraan benn banqaas boo demee ba ci biir masalay fiq yii nag mm. war a du am benn samara mm-hmm. buy waral ñuy wute ci biir ah lii mukallaf bi ya lii mukallaf bi ya mm-hmm. jaamu ngi dara bi ñu ko joxoon soo ko defee te yàlla sax dañ jël teew gën a rek wala li faqdi a ngir ñàkk faron xaayante bi lépp ci mën de génne benn faron pour nga foog ne déggula ko faron jaam fekk baax gelo du xam li faqdi faneen ngir ñàkk baax jërëjëf jërëjëf amiin amiin yàlla amiin